dal leen ak jàmm mbokku internet yi li moo waral ba ki nga xamante ne moom mooy docteur Aloyse Diouf daal di jógee ci ministère de la santé mi nekk ci njiital jouf Sarr docteur Aloyse Diouf dana bàyyeekoo ca ministère de la santé et de l'action sociale bi nga xamante ne daanaka moom moo nekkoon directeur cabinet ki nga xamante ne moom mooy ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr li ko waral mooy waa OMS organisation mondial de la santé dañu ko jël ngir mu liggéey ak ñoom boobule xibaar waa ministère ci seen jëmmi bopp ñoom ñoo ko dëggal ci gannaaw gannaaw si nga xamante ne waa IGFM jot nañu jokkoo ak ñoom ci mbir mi na am sax ca boobu lee xibaar lañ ca xamle mooy ki nga xamante ne moom mooy docteur Alioune Diouf daanaka waroon naa jóge foofulee ci lu yàgg waaye mbas mi ne woon ci réew mi moom moo waral mu mujj fomm dal di dàq loolu lee ba jëmi jamono tey ji mi ngi ci ay waajtaayam ndax daanaka bu weer wi deewee ca lay jógee ko ca ministère de la santé ngir dellu ca wooteb organisation mondiale de la santé ba ki ministre de la santé et de l'action sociale bi nag daanaka dinañ ko xam ci lu yàggu dara waaye ba tey itam li ñu war a leeral dëgg-dëgg mooy ki nga xamante ne moom mooy docteur Aloyse Diouf du sori Sénégal donte dafay nekk ci kilifteefu waa OMS organisation mondial de la santé taxul mu génn réew mi ndax file ci bureau OMS bu Sénégal fii ci biir réew mi daanaka fa lay liggéeyee ji équipe bu Tactic TV yépp ñi ngi koy jaajëfal ci liggéey bu am solo bi mu jot a amal ci wetu suñu ministre de la santé de l'action sociale waaye itam di tawfeex ba fa mu jëm mu fekk fa jàmm nekk fa jàmm jërë ngeen jëf